sénégalaise xaw ma lu mu jotee ak borom këram daal amul ban dëkk la am après danañ ko expliqué moom daal moo jékki-jékki rek wàcc ak njabootam yëpp ci mbedd yi foofu xaw ma ban dëkk la waaw moom ak dafa naa daal borom këram moo ko génne daal mais problème bi mujj na réglé mais ay xaaju guddi ñetti doomam di jooy ba fi mu doon et mu doon jooyee ci ginnaaw kër maire ba meer bi nga xam ne mooy maire dëkk ba mooy maire ba maire dëkk ba ci ginnaaw këram la fa nekkoon ak ñetti doomam di jooy moom daal moo borom këram ñoo jàppante man daal xoma temps yi lu xew waaye waa Italie yal na yàlla defal oto bi ñu ne dënn waay beneen sénégalais yore yat di dóor ay <laughs> policier ñu ci mbedd Italie doom yi di yuuxu ba 4 heures du matin kenn koo noppi yow mook jabal doomam loolu daal moom la italien yi di kaasaat ay waay yàlla nañ ca yàlla musal ci cat waay waaye ñu leen topp yàlla nañ bàyyi waay waaye waaye italien waay mbaa lii jàmm la loolu nag merloo na ki nga xam ne mooy Sergino ak Adriano nee nañu ñoom Sénégal yi léegi nag lu ëpp tuur ñu dem lan mooy solution Buongiorno, buongiorno. Sénégalais, sénégalais, terme yaare sénégalais. Sénégalais, terme yaare. Sénégalais, de porte ñaale ke terminale Ravenna. Roma. Ah. Oh, sénégalais, sénégalais, lambar lambare da parte sénégalais. Non Mera. Mera. Meradinho di sa carte te secrétaire moom dafa ngeen baal ma tuuti man dégg olof tuuti nda am na sénégalais ne fii dégg olof moom mer na moom mer na moom nekk na meeru tikana l'hydradino xool bi tàng na torop mer na sénégalais départe kay terminale terminale sénégalais ambilane moom mer na médecin ambulant moom xol bi munul wax parce que moom wana sénégalais commencé ëppal non seulement ñu ngi lambar lambar di dem di ñëw waaye ëppal le bartane ko c'est ka de concentration ne leen ke centrale ñu naan torto le sénégalais derte ka sene ko settene derte sénégalais ne ki ambulance beɗe mbaɗa kata sénégal e marché ambilani otone oto rénavirede embouteillage sénégal e fostede kalkitnan embouteillage ne kenan or tortede marché ambilani trois heures ɓe troisiéme foiro ene mbaɗa ɓe sénégalais yo aa ene bambino kono sénégal e bambino ni kakirana ko ah! carde cartane no barciasse tertero corte terminale tertero no barche sénégal e bambino eh teoriyo a teoriyo pré fois le Sénégal labar labar labar labar door fotte tette vater katron tore de kalmala ner ma te kalmala ner xoder dele var dele var Sénégal lambar lambar picc pitax jurgot jurgot jurgot jurgot jurgot trois leste karmerene va bene Sénégal barta toi trois trois te leste te karmerene troisième bébé sénégalais ñii ñii ñii ñii ñii deux heures trois heures quatre heures de maïs quatre heures de maïs rek personne ne vous tout passe te regarde parce que te regarde après tu es dit tu non non tu dégages foutez les camps foutez les carrés foutez les camps depuis per à per non après trois trois heures de matin on te tue foot tu dors. <laughs> ne partenaire conférence religieuse les sénégalais no korte jànge na karne ka murdiya na ka tijaniya na layeniya anan tordone sénégalais bam kar kito bara allah allah ni kar parte sénégalais terminare kon non to se cinto ko paatine kon berga bon na otar mm. par ustaz mod far na mm. par terra vous vous êtes carmela nere. Depende dell'organizzazione. Fate carmela nere. Fate carmela nere. Cara cagnazza. Senegale, il voto carmela nere, perché carmela nere. Carmela nere. Senegale carmela nere, u italiano. Carmela nere. Il faut carmela nere. Non, non, c'est faux, Il faut laisser les carmela nere, parce que Abul torna. Torna, torna, torna, torna. Torna, no, eh, torna. Eh, eh, eh. Milano, Milano a pregare le Senegale. Eh, Est Adranco, Milano e eh, après trois le Senegale. Di passa, Cabrasef, tem. No, Cabrignane, Cabrignane Senegale torna, non Cabrignane. Cabrignane, Cap Cabrignane. Cap Cabrignane. El, il faut dire ça de l'offre. Oh, ma wax na Sénégalais vraiment moom xool bi tàng na wonul baale wala kada kada ñara bar kada taras ka ka tabar tana ah tabar tabar kan le kada seragar tabar tabar seragar tabar kan kada kada tabar restaurant eh dario dario dario dario rar dario dario senegale te leste parti la barra bar abila ambila ambila te la barra bar senegale bizarre ko la barra bar la barra bar la barra bar tal la barra la barra bar il faut te dire ça d'accord comme il y a non Eh Briano, deste questiona ma. Che piano piano mi da banca da sera la barra da batte no. Eh, parti. Vai, ehi, che ti Eh, porca batte, sarà che la barca da barabane. Ne parla in familiare, capisco la bebe bebe nao. Oh. Eh, bambino. No, ditemi. Che il fo il fo Senegal. Senegal il mus. Senegal il forte forte la ca.